Pape Modou. booy nakam. maa ngi mën naa ñu seenu de. kaay ma tegal la sa sa sa saaf bi bisimilah première naa ma mën a. Ah. ginnaaw suba la laa ñëw. Ah. après nga wax ko sa papa. mais ci guddi mhm. ay ngoon laa ñëw. Ah. war mi sel laay reere. ma lekk pom. naan biteelu boisson. lekk banaana. naan attaaya. Mhm. naan café Touba. Mhm. Nan mew jéggal len foofu ma tëj suba la magal nak day saf saf nak aga àggagugun ca magal ga premièrement nek li mburu ak sandwich sandwich bu fess del billahi bu fess del bo xamne mad waxay ko sa papa ni après net nga jël ki après sa <laughs> sandwich bi la yi ñew la xak so après akari après nga soga andi indi lakka bi après ngeen tegal ma attaaya ma jéggal ba añ jot añ bi nag suñu wala maa galañ yi ginaar bu ma gis ceeb ginaar yu baax ci bisu màggal ba léegi rek ma pare naan boisson naan si naan soow naan attaaya après ma lekk ñoom pom ak ak mango ak pom Tidak ada. Aku gun kibi sama agar gimu idam. Kidun jubo. Barkar frandun jubo. Munu ma fada. Eh, kirbap mor. boo yow gaan moytuma wax mu booba day li yow yow keroog kay moom yaa ngi ne ma kay dalal ma ma màggal li ma man ma ma ma lay kay wax li ma koy bëgg gaan àggal gu ma sax ngay daw. waaw léegi danañ waxtaan danañ waxtaan. non non kay moom gëm nañu kay moom juboo yow. danañ juboo yow kay jéem naa li nga waxan keroog rek. mun naa ni wàññi xa xa ko wàññi. màggal gu mag gi Serigne Touba ko woote. da ngaa war a lax saayu dem sa liggéey ba bu nangu raw la fa. te eh, bis Serigne Touba bi lu fa waay def dina fay lu ko ku nekk war nga gor gor dem def fa saw ñaq sëriñ bi woote màggal dajee bol ak yermane ndax ndaxte dane sama bis bi xeebu ma ginaar nawuma gilem gileem te bu ko neexoon mu ne na ñepp rey nak wala gilem bu boba képp ku ko amul tamit di ko jëm way yermane moo tax xeebulu kenn dara te magal gi magal képp ku jullit la kenn waru fa dem naan gan la di fa teg kenn lu mënu I Tout ça, tout ça.

sa sandis kay ba mu fees leen. waaye man lenn rek man boo ko d'accordé. nga ñëw dalal ma. mburu dagg mburu ak mayonnaise. benn xaaju mburu ak mayonnaise. dagg mburu ak mayonnaise. greffe de l'ancien moom ma eh, eh, ma naka ma nii ba doo dalal ci màggal gi nii. Ah. la waaw. léegi sax yow sax mu mu ba ma la waxoon nga bay sax pour ak sant. waaw garaawul yow daal yokkal sa kay noxoon mooy si teel la dalal la loo mën di kay mën laa defal mburoog soos. mburoog soos sax waaw. màggal ak daaw rek mburoog kay om na daa doon kay ndénke yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam la am naan ma. waaw Asel. yaa ngi waaj màggal bi daa